ñu tombé le premier novembre ci la nga xam ne mooy deux mille vingt ñu nekkoon ci baabun fi ahkaamil imaam war a jël la nga xam ne moo ci mujj mooy ci bind ya gën a mujj ci trente-septième bunt bi fi muy waxee wa iqraarul abdi fii maa yalzamuhu bu dee yaa ngi ci mool bu xonq bi traduction bi ci page cent bi lay doon ca digg page bare bu dee yaa ngi yor samaru daali bi boo xoolee page six cent un nga xool quatrième ligne ba xamuy waate jeexe da ngay gis mu ne wa iqraarul abdi fii maa yalzamuhu lu jiitu mbokk jullit ñu ngi ñaanal suñu mbokk yi di professeur Iba Der Thiam bokk na loo xam ni yàgg nañ ko dégg ci moom depuis daanaka les années quatre-vingt bëgg koo xam ne bëggoon na ko diine lool daan woote këram ay ndaje yoo xam ni dañ ciy discuté woon lu xam-xam lu bëggoon xam-xam it daan ko topp ku yàlla defi mu nekk ministre ministre de l'éducation nationale lim defal la nga xam ne mooy njàngalem arab ci Sénégal ci moom lañ ko amee ba suñ jëm yi tey loolu kon ñu ngi ñaan yàlla na yàlla jéggal ko yërëm ko te yàlla defal ko àjjana mu nekk wàccu waayam su dee bokk nañu gis mu ne wa iqraarul abdi fi ma yalzamuhu su dee ne dafa saxal ab jaam te la nga xam ne day lënkoo ak moom fi badanihi ca jëmmam ja min xaddin ci loi buñ koy teg aw qatin wala dog buñ war a dog ay loxoom yalzamuhu boo xam ne day lënkoo moom mooy loolu dina lënkoo ak moom bu dee moo ko saxalal boppam fa ma kaana fi raqabatihi loo xam ne nag day aju te la nga xam ne ak loo sam la te mooy lu koy goreel fala iqraara lahu kenn du saxal atte boobu ci moom loolu mbokk comme niñ ko waxe woon ci bind yi passé ay atte la yoo xam ne dafay aju ci ay jaam ñu ne bu dee moo taxaw saxalal boppam ne maa def nangam fasalal jàpp ñëw ne daf man dama njaalu mel noonu luñ ko war a dóor téeméeri yaa saxalal mbokk bi dama sàcc yow la dagg loo xam amma bu dee loo xam ne da koo saxal da koo seede masalan seede woon ni kii nga xam ne moo ko moom kat li ñuy wax moo ko rey mu ne day bokk ci seede yi te xam ne ren dafa war a goreel jaam ku mel noonu dañuy dàq ak seede loolu kon ñu ngi noonu loolu te ne ngir jaam yooyu gisuñu luñ koy àtte tey kon suñ jëlee beneen bind day wax ni wala qata fi samari mu'allaq kenn du dagg loxo kenn ci meññeent yoo xam ne dañ koo aj wala fil jumaar wala la nga xam ni mooy xolu tàndarma nga xam ne mooy bopp tàndarma ba ñu koy boo ko daggee sax lu bëri tàndarma nga day faal wala jumaaru fi naxam ak la nga xam ne mooy bopp tàndarma ba ci tàndarma ya wala fil ganami raiya kenn du dagg it ci gàtt yoo xam ni dañoo nekk fa ñu koy sàmmi xatta tusrafu min marahiha xanaa lu dul dañ koo sàcc ci géttam nga wa kadalika tamaru min àndar wala boog nga sàcc tàndarma fekk ni yaa ngi ko sàcc fañ ko witt dajale ko ko mbokk kon day wax fii ci nii ci demoon ci tool tey fekk fa meññeent mu daal di witt ci meññeent bi kookee lu mu bari bari kenn du dagg loxoom doonte ne ni buñ ne du ñu dagg loxoom ni firiwul ni du ñu teg ci moom la nga xam ne mooy duma wala ndàmpaay bu koy dee ëllëg keneen def lu mel noonu waaye bu dee dagg loxoom moom maanaam ci tool yi la ko fekk kenn du dagg loxoom amma nag bu doon waa ji daa dem góob am toolam yóbbu ko daa di koy def salan bu doon la nga xam ne nii fa ñuy jàll meññeent ya loolee la doon ci kër ga la ko def wala ca toolam wala feneen la ko def waaye moo ko witt ba dajale ko moom mu fekk ko fa nag sàcc ko su boobaa moom lam ca sàcc bu matee gisaab dañuy dagg lu xam naka noonu waa ji daje xar wala bëy ci àll bi ñuy far mu daal di ko sàcc lu mel noonu buñ ko jàppee daan ko duma daan teg ci moom lu wax waaye nag kenn du dog loxo maadaama ci àll bi la ko sàcc la ko la ko sàcc am naa ci dem ci biir dug jàmbur dugg ci biir gétt ga sàcc moom lu mel nii moom bu ko jàppee fokk dañuy dog loxo te mbokk règle sàcc ci lislaam mooy lépp loo xam dañ koo jël denc ko nga joxe gannaaw jël ko loolu la ñuy tuddee sàcc ci lislaam ku mel noonu dañoo war a la nga xam ne mooy dagg sa loxo loolu mi ngi noonu wante ni waxoon nañ ca jël biinu ko garsiya mbokk lislaam dafay protéger société bi ba protéger waale criminels yi ay ña nga xam ne ñooy def ay njombe tey jii boo xoolee Sénégal ak feneen lu Sénégal lan la ñuy gis sàcc bu ñu ko jàppee dañ naan rek na dee sàcc moom na dee rek bu doon dëkk bu mel ni Nigéria waa Nigéria baal xabaar yi ñu koy dégg da ngay gis góor ak jigéen kuñ ne sàcc na lu ñuy tudde mooy collier pënd la ñuy jël rek takkal ko ko taal ko ak pënd bi ñu ngi loolu am na xabaar yi bu ci sa déglu day daw yaram soxna soo xam ne doomam la boot bi ñu jàppee daal sàcc moom doom ji lañ boole taal looloo tax moom islam dafay protéger xatta di def njaaxum kon ki nga xam ne dafa def njaaxum bu toll ne nit ñi ñax seen alal denc ko nga ñëw sàcc ko islam ne bu ngeen ko jàppee dagga leen loxoom ca bàyyi yaakaar naa ko jumale ne ñetti li histoire bu xewoon fii ci Caaroy benn waay bu ñu jàpp di ko dóor grig yeeg yat yi am ko daw rocceeku dem woo chef de quartier dafa am na ku ñuy bëgg a rey fii de chef de quartier bi ñëw tiim ko waaw diw naan na ko waaw sëñ bi yow xanaa doo julit mu ne ko waxe kay julit laa de mu ne ko waaw yàlla du wax ci sàcc mu ne waaye yàlla ne nañ dagg loxoom la waaye nañ dagg loxoom di ca bàyyi ba yaa ngi dégg loolu bokk muy wane ni islam di protéger xatta ci def njow ñu ngi noonu bu dee ne jël nañ beneen bind mu ne wala yushfau liman balaga al imama fi sarafati wa zina kenn du ñaan intervention ci loo xam ne yegg na ca imam ci sàcc wala ci jaaru waxtulifa fi zalika fi lxalf doonte ne jooyoo nañu ca la nga xamee ni nii moom mooy ci tuumal doomu aadama bi ak njaawo mi ngi noonu acte bi mbokk li muy jàngale mooy benn waaye yi def na njombe ñu gis ko moo sàcc ñu jàpp ko mu sàcc ka nga xam ne moom la sàcc boo ko suturaalee bañ ko yóbbu ci àttekat ba islam du wax ci loolu dara ñu noonu kenn ci sahaaba yi ñëw na ci yeneen ci bi alei salaam indi sàccam ak preuve yëpp yeneen ci bi nañ dag ne nañ daggaloo xor mais yow yàlla yu ni jéggal naa ko yeneen ci bi ne ko teewal nga koo jéggal avant nga koy indi te mooy lépp loo xis ba yëg si ci àttekat kenn amatul droit di ca def intervention waa ji jàppoon ñuy njaalu même bu doon quatre personnes cinquante personnes gis nañ ko muy njaalu ñooñu ñu suturaal ko loolu yi islam di leen wax ci loolu dara amma bu demee ba yóbbu ko ci attekat bi kenn amatul droit ñëw di ñaan buñ ko duma wala di ñaan buñ ko rey déedéet mu ne nag lañu wuute mooy ku tuumaal nit ki te mooy ki tuumaal nit ki njaalu ñu yóbbu ko ci attekat bi ndax dañuy xool ne lii àqu yàlla moo ci nekk kon kenn amul grand ñaan intervention wala dañuy xool ne lii àqu ab jaam la bu mu tooñ jaam boobu am na droit bale loolee mu ne borom xam-xam ne tamit ci la ala kulli xaal am na ci ñoo xam ne nee na ci mu tuumaal su dee moom moo ñëw ci àttekat bi ne man baal naa ko su boobaa kenn du ko dund loolu moo aju ci wàllu googee su dee dañuy jël ba ñun benn mu ne waman sadaqa min al ummi futia koo xam ne daa sàcc ca la nga xamee ne nii moom mooy nit ki loxo mbubbam la mu ko dugal képp koo xam ne rocc na ko sàcc ko dañu dafa loxo waman sadaqa min al ummi képp koo xam ne dafa sàcc ci magasin public bi nga xam ne fa la ñuy denc suñu état yi dañuy dafa loxo wa baytil maal ci sax ci trésor public ba ñuy denc xaalis dañuy dagaloo ko wala magane mi ak képp koo xam ne it nag nga ne ci guerre ba ku mel noonu it wala yokku tax ñi ñëpp dañuy tàng seen i loxo wa qiila in sadaqa fawqa xaqihi min al maghnam li salaasati daraahim xuti am waaw kii day wax rek ne ki nga xam ne daa ñëw fekk waa ji denc ci suufu loxo denc ci poche denc ci lu mu mën a doon mu daal di wël ba ñu ko daal di koy sàcc ku mel nii dañuy dagg loxo te yi nga xam ne yëpp dañ fa denc dundu état bi nga xam ne ñëpp la ko bokk dañ dafa dund état bi wala fi ñu denc xaalis état bi képp ku ko sàcc dañuy dagg sa loxo donte ne dañuy jàpp ne du nit nga sàcc waaye état bi nga sàcc te loolu it jara bàyyi xel lool ñu bëri ci doomu aadama yi jàpp nañ ni dem di sàcc alal yi nit loolu moom xel xalaat ko dara jarul leen am naa bu ñu demee ci poste lii alali mbooloo mi la nga def ci détournement loolu moom jàppoo ko muy dara waaye mbokk di leen xam leen ne yi sàcc alalu ma sàmba ma sàmba la doon mais ki sàcc alal réew mi réew yëpp la doon loolee kon ñu bàyyi ci xel bu baax mu ne nag am na ñoo xam ne dañ ñi la ñuy gañee ca guerre ba bu dee moom ca la bokk su dee sàcc na ca lu tolloo àqam kenn du dama loxoom waaye bu ca sàccee lu ëpp àqam ci ñetti dërëm su boobaa dañuy dama loxoom loolu mbokk mi ngi noonu suñuy jël beneen bind mu ne ويتبع السارق إذا قطئ في قيمة ما فات des na topp sàcc ba suñu dagee loxoom ci xayma la nga xam ne faat na min asariqati fi matarihi la nga xam ne dem na ca lam sàccoon su dee na moom am na kattanu fay ko dañ koy topp ci loolu wala ñu tabaxu fii wudd mi yi su dee ne nag amul dara comme dagg nañu loxoom kenn du ko ci topp wa yu tabaxu fii wudd mi yi bi ma la yuqtaxu fii min asarifa dees na ko topp ci ñàkkam te na nga xam ni kenn du ca dagg ci sàcc ga bokk day wax fii ci ne ki sàccoon alali jaamu daal di jël ko sànq ko masalan sàcc na nagu jaamu jaay la ko dem nañ ba gis ni kii moo ko sàcc te mel noonu dañuy dagg loxo su ñu xamee ne mën naa fay nag ñu ne ko da ngay fay nagu jàmm dagg loxo bi du tee mu fay lu sàcc amma bu doon amul dara comme dagg nañ loxoom dañ koy bàyyi mu dem yoon bu dee ne nag waa ji li mu sàcc kenn daggu ci loxoom wax naa la ne comme ñëpp ñu dagg loxoom ci sàcc il faut mu sàcc li ñuy tuddee robo dinar bu dinaar mooy presque un gramme bu hectare nga xam ne day varié sunu jamono jii autour de vingt cinq mille francs su dee nag lan sàcc mag rubu dinaar su boobaa buur am na droit bu ma ko tuuma ñu yeeyoo loolu sàcc ndax kenn du dagg loxoom te it na doon daa am ak daa ñàkk dañ naan ko fokk lii dana nekk kon sa loos fokk nga ñëw fay ko dinga ko sàcc loolu mbokk moo aju ci wàllu boobu nga xam ne mooy tëj suñu fanweeri bunt bi ak juróom-ñaar ñu ngi noonu ñu war a dem ci fanweeri bunt bi ak juróom-ñett lu dul ne xëy na mbokk yi liñ jot a wax ñàkkul ay laaj yoo xam ne dana leen itteel wala ñu dem ci beneen bunt mi ngi noonu wallahu alam waaw bismillah sàcc waaw waaw ku sàcc ay naam wala ku li xaal ki sàcc ay xar ci àll bi ku mel noonu dañ ne sàcc la waaye nag kenn du dagg ko maadaama ci àll la ko sàcc dina fàttali ko ci dars yi passé ñu ngi doon wax ci ñu for ba ñu ne ki for xar wala bëy ci àll ba bu mel noonu xamul ku ko moom mën na ko jël te damay dafa ñëw ci yéen ci bari islam na ko waaw di dox ba ci digg àll mu ne ñu ko am bëy wala xar buy àtteem mu ne ko ah imma nga jël ko wala julli jël ko mu laaj ko bu dee gileem nag mu ne ko gileem moom mi ngi tànk boppam mi ngi la nga xam ne mooy nandaay boppam comme loolu dafa am ak lënt si waa ji mën naa wax mu ne ah man kat xar mi man ka sàcc man ka fore ci digg nangam moo tax islam dani ku mel noonu daal kenn du dagg loxo wax naa la nag dagg loxo mooy peine capitale yi mag yi waaye attekat bi heure bu gëstoo ba xool moom kat lii moo ko sàcc même bu dagg loxo daañu nga fay loolu bu sàcc te it daañu ko duuma loolu mooy aju ci wàllu googee am ma bu dee rubu dinaar ni ma la ko waxee dinaar mooy liñ doon jëndante ak jaay ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu dee oora dañ daan wax dinaar bu dee xaalis ñuy wax dirham dinaar moo di 4 gramme 25 mooy liñ daan tuddi dinaar ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne dañuy ku am ñaar fukki dinaar zakkaat war na la dinaar bi bu ñu ko doon xool suñu jamono tey mooy 4 gramme 25 loolu tax ñu naan nit ki bu amee 85 grammes d'or day gën a zakkaat ndax boo jëlee 4 gramme 25 multiplié par 20 da lay doon 85 grammes amma maadaama dinaar bi 4 gramme 25 la soo ko doon divisé par rubu rubu mooy quart. kaaru dinaar mooy rubu dinaar kaaru dinaar soo ko divisé daanaka lim lay jox mooy 4 grammes 06 à peu près da lay jox ba 1 gramme 06 à peu près loolu moo tax ba ñuy wax naan 1 gramme presque bu teg bi mooy lu ñu tuddee rubu dinaar wallahu subhanahu wa taala alam yaakaar naa tey mag bi lan caam rek ñu ngi nekkoon ci benn takk kanoon waxal waa jàkka dina ñun fii suñu jàkka duñu fi maye ci la indi wóoru bu dinaar noom donte ne lu buy dinaar boobu noonu bu dee mazhab Maalik dañ ne suñu borom mi ngi considéré alal rubu dinaar moo tax mu ne ku ko sàcc nañ dagg loxo te ki nga xam ne day takk soxna suñu borom mu ne nañ ko jox alal kon alal joojee mi ngi commencé ci rubu dinaar bala ngaa takk soxna lu jël rubu dinaar ñoom loolu seen ijtihaad waaye lu ijtihaad boobu nag dafa am ay yeneen nas yu ko dàq nas yu ko dàq mooy lan mooy yeneen bi daa maye lu yées rubu dinaar waaw nee na ñoom seen ijtihaad dañ naan nit ki daal li ñuy tuddee alal bi tax jigéen dagan la alal jooju fokk mu mu mat rubu dinaar te mooy tourné autour de vingt cinq mille francs allahu subhanahu wa taala aalam waaw bu dee bu dee bismillah xam naa yow ñoo ko doon dimanche passé léegi ñu sàcc ba ñu dagg ñaari loxo di di sàcc benn loxo day joram la ñuy dagg bu sàccaatee tànku càmmoñam la ñuy dagg. ñu la sàccaatee tànk càmmoñam la ñuy dagg bay fekk di benn borom xam-xam su di sama ci jàpp naa abdullah xaw naa nii la tudd dafay nekk di waaraat benn càmmeen xool ko bu ci na ko sa waaraate gi di neex na waaye nag sa loxo bi dagg daal moo ñu jaaxal ci yow ñu ngi noonu te fekk loxo càmmoñ bi nag moo dagg mu ne ko waaw fekk waa ji ci kaw kaw yi la bokk mu ne ko waaw waaye nag yàlla wax di dëgg yàlla nee na al arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa aktaru ala ya'lamu hudud allah illa ma taala rasul kaw kaw yi day ñoo gën a tarkee biir gën a ñàkk xam parce que bu doon te nga xam nga dara ci biir da nga xam ne sama loxo càmmoñ bi sàcc taxul ñu dagg ko ndax bu ñuy sàcc loxo day joor la ñuy dagg kon ki sàcc loxo day jooram la ñuy dagg bu sàccaatee ñu doog a dagg tànk càmmoñ sàccaatee une troisième fois la ñu doog a dagg loxo càmmoñam bu sàccaatee une quatrième fois ñu dagg tànk ndey jooram wallahu subhanahu wa taala alam waaw.
ki nga xam ne dafa sàcc te loxo day yor rek ñu jëful. ñu koy dagg.
li nga xam ne dafa sàcc loxo day jor ba mu def ah loolu day duñ mën a wax lu dul ne xam naa day nekk cha chance am mooy ñu dagg dagg kii ko comme maanaam daal sharia di ko wax lu dagg loxo su doon loxo amu ko moom laa chaque ne dañuy dagg loxo càmmoñ doon loxo amu ko wax dëgg loxo ba daggoon na ba pare ci leneen la ko dagg dañuy dagg loxo càmmoñ looloo tax ba mu njëkkee sàcc ñu dagg loxo ndeyjooram bi mu sàccaatee comme loxo ndeyjoor nañ ko ñu dagg loxo càmmoñ waaye ma waaye maadaama loxo ko moom ma nga fa nga xam ne mënees na koo dagg moom lan ca mën a dagg daañ ko dagg ca l'islam wax ñu dagg ko ci loxo yi mooy fii ñuy takk moom mooy fii nga xam ne nii moo lo jëm suuf loolu la ñuy dagg ci loxo bi waaye du ñu dagg leneen lu dul loolu jëm kaw mu ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam waaw xanaa ku li xaal kon ñu jël beneen bunt bi ci tege doonte ne la ma wax woon ca bunt bale rek lay wax ci bunt bi mooy téere bi moo ñu ci yóbbu ak it yoo xam rek ne suñu diine li la atte mais atte la yoo xam ne ñun dunduñu ko ndax li ñu yàlla nattoo mooy réew mi ñu nekk atte wuñu islam ñu ngi noonu waaye nag day wax fii ne baabul fil aqdiya wa shahaadat lii day bunt la ci atte yi lislaam tëral ak bunt la yuy wane lan la lislaam gise ay seede mu ne wal bayyinatu ala al mudda'i preuve day ka nga xam ne moo accusé moom moo doon koo xam ne nii moo jiiñaate mooy indi preuve wal yaminu ala man ankara waat nag dana war ka nga xam ne dañ koo accusé moo bañ loolee wala yamina xatta tasiba alxulta ak waat nag du am lu dul ni dafa doon loo xame ne nii ak jaxasoo da ca am mooy rapport dafa am ca kañu jiñ ak la nga xam ne moom lañ koy jiñ aw zanna wala boog mu doon koo xam ne nii dañ koo doon aji tuumal la mooy ak zinna mooy ku ñu tuumal la te mooy koo xam ne daal ku ñu soupçonné la ci def ay jaww kadalika qadaa xukaamu ahli madina nii la ko attee woon wala ñu ngi noonu la nga xam ne mooy attekat yi ña dëkk ca madina seen borom xam-xam wa qad qaala omar ibnu abdul aziz omar nag daana wax tuhdasu linnaasi aqdiya dees na sosal nit ñi ay atte bi qadri ma ahdasu min alxudub ci lu mel ne la nga xam ne sos nañ ko ci ay kàccoorte yoo xam ne dañ koy dañ koy tëral ñu ngi noonu kon mbokk day wax fii rek ni heure bu ñu demee ci àttekat bala ngaa jiiñ nit ci dara fokk nga indi preuve yuy wane ne waa ji kat liñ koy jiiñ moo ko def su dee ni danga ko yóbbu ci àttekat bi te indiwoo preuve yoo xam ne dana doy àttekat bi bu tee attekat bi dana woo kañ jiñ dafa yow day jiw ne ne yaa def nangam su ko nangoo ñu teg loi ci kawam su ko nanguwul ñu waat loo ko ci yow ba defee mu waat ci yàlla ne lii ñu ngi jiñ man defuma ko ñu noonu waat ci yàlla ne lii ñu ngi jiñ man defuma ko loolee ñu ngi noonu ñu ngi fàttali benn àttekat bu fi jaaroon di Keba Mbaye yal na yàlla jéggal ko yàlla yërëm ko mos na ko dégg mu ñett bi ñu koy laaj na ko sa carrière àttekat lan moo la ci gën a touché mu ne waa benn journée mos naa dem pompier ñu bëgg a jël oto ni benn jeune dogaale ma jël sumay bagage yóbbu ma ba ci oto yi ma làmboo sama poche ba koo jox dara mu téye sama loxo dama ndax xam nga ma mën a ko déedéet mu ne ma année tel yaa ma atte woon ci nangam ñu tëj ma xaw ma ñaata at waaye billahi maa ngi lay waatal ci yàlla lañ ma atte woon dara laa ci def nee na dem woon ma gannaaw nee na loolu moom bokkul lu ma gën a touché ci sama kari te mooy mi ngi noonu da ngay gis ne attekat yi ñoom ci li ñuy wax rek dañ naan nous visons le droit mais nous ne rendons pas la justice dañ naan daal lii la loi bi wax waaye nag kooku ñu ne dañ dañoo teg ci moom li loi bi wax mën na am deful dara amaa bu doon salaama nag ñi ki buñ ko jugé ci indiwuñu preuve yu day dañ koy woo bu waatee ci yàlla ne def ko dañ koy bàyyi mu dem koy bàyyi mu dem mu ne nag nit ki kenn du ko woo di ko waat loolu di ko accusé lu dul ñaar moo am benn mooy moom amoon na relation ak loolee nga xam ne masala nañ koo sàcc mooy ku ci doon liggéey la ku ko jege la mu mel noonu comme am naa relation ak loolu manes na ko tuumaal woo ko pour mu waat wala boog mu doon koo xamee ni ni moom ñëpp xamee nañ ko ak njom la ñëpp xamoon nañ ko ak njom la te waa ji nga xam ne moo ko ci jàpp na ne lii du rek moo ko wane su léegi nag koo xamee njëm la moom su boobaa dañ koy waat waaye jullit boo xam ne amul benn rapport ak yow la ngay wax kenn du ko woo ñu koy bu càkke kat di ko war mu ne nag lii mu wax borom xam-xam yi ma dina li lañ ko jàppee donte ne tëjee na ko ci ne Omar ibnul Abdul Aziz day daana wax ne nit ñi heure bu ñu sosee la nga xam ne mooy ay bakkaar yu bees fokk ñu sosal leen atte yu bees te loolu la ñuy wax ci loi jurisprudence mooy xattaa suñu atte yi nga xam ne ñoo ko tëralal suñu bopp sax su bu nekk mu am ay cas yoo xam ni loi mosu ñu wax dara su ko defee il faut que ñu xalaat ana ban acte la ñuy tëral ci lu mel noonu da ngi noonu bu doon dañuy jël ba jël bind mu ne wa ida nakala al muddaa alayhi ka nga xamee ni nii dañ koo tuumaan bu dee dafa dellu gannaaw lam yuqada li taalibi xatta yahdifa fii ma yaddahi fiihi ka nga xam ne moo ñëwoon di sàkku kenn du ko atteel di ko jox lu dul ne dafay waar te la nga xam ni moom xam na maarifa xam na ne ni moom kii moo def loolu mi ngi noonu wal yamiinu billahi ladi laa ilaha illa huwa waat ci lislaam may nga ne billahi ladi laa ilaha illa huwa wa yaxliku qaa'iman ca kii waat day waat fekk mi ngi taxaw wa inda minbari rasuli sallallahu alayhi wa sallam mu defee ko it ca minbar yonente ba sallallahu alayhi wa sallam fi rubu dinaar bu dee kay la ñuy xëccoo paase na rubu dinaar fa asfar wa fi gayri madina bu dee nag ñay juyoo nekkuñu madina yaxliku fi dalika fi ljaamici ku mel noonu day dañuy dem ca jumaa ja waate ko fa wa mawdiin yuazimu minhu ak place yi nga xam ne dañ koy màggal wa yaxlifu lkaafiru billahi xaysu yuazim bu dee yéefér nag dañ koy wàlloo ca place yi nga xam ne da koo màggal wala ku li xaar mbokk daanaka liñ ko dégg nii amul commentaire te moo di ne nii ki nga xam ne mooy atte loo atte diggante ay nit nga xam ni ay preuve amu ci ka nga xamee ni nii dafa accusé mi ngi ñëw aka indi accusation waa ji weddi na ka nga xam ne mooy àttekat bi da leen di waatloo mu ne waatloo boobu nag duñ ko defee fu nekk bu dul waa Madina dañuy dem ba biir jumaa Madina ñu taxaw ci minbaru yeneen ci bàyyi salaam nga daal di waat billahi lazi laa ilaha illa hu waat ci billahi lazi laa ilaaha illaa huwa loolu la ñuy wax loolu mbokk ñi ngi noonu te loolu la ñoo jàpp ni jullit bi bu dee ne ci xolam lu toll ni ngëm miskaala zarra mi ngi ci nga nekk ci jumaa yonent bi alayhi salaam taxaw ci minbar yonent bi alayhi salaam waat ci yàlla fekk da ngay fen loolu du jullit ñëpp ñoo ko mën tax mu wax lu mu ne bu dee ne du Madina sax ñu dem ci jumaa bi waat fa mu ne bu dee ab chrétien bu ñu tuumaal mën nañ ko yóbbu sax ca église ba waat loo ko ba ndax ngiree mu bañ a fen mu ne kon waat mooy billahi lazi la ilaha illa huwa ca mbokk suñu borom yàlla nattoo na ma ci semaine bi rek semaine bi rek fan yu néew ma am place bu may romb fekk ñuy tas fii lu ndaje waa ji woote woon ndaje ba mu ne waa ci ñetti xarf lañ koy def mooy waaw ak baa ak taa mu ne waaw mu ne leen yéen booloo bi billahi wallahi wa tallahi yéen ñëpp da ngeen dund ba déwén ñëpp yoo xool mu ne billahi wallahi wa tallahi wala diwin yéen ñëpp da ngeen am alal ba teral seeni waajur def nangam def nangam lii ma leen wax bu amul xacc naa ci seen jëw looloo des ndaje ma yàlla moom moo ci yemale yàgg na yàlla mu ne ay mbokk loolu yéeme na yéeme na di koo xam ne nii maa ngi waat man ne waat naa ne li ñu wax xam ne du dëgg yaa ngi dégg xam ne du dëgg su ko defee kon mbokk loolu la ñuy tudde yaminul xamuus mooy waat ci yàlla fekk da ngay fen li tax ñu tudde ko al xamuus mooy waat la buy nuural ay képp koo xam ne def nga loolu fokk da nga mos a nuur ci biir sawara yal na yàlla mosul ci waaw su ko defee jullit doy na rek nga fen fen rek ëpp na ci jullit amaa nañ fen ba pare seedaloo yàlla loolu mbokk loolu garaaw a garaaw loolu mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax ala kulli xaal bu dee dañuy jël beneen bind mu ne wa ida wajada daalibu bayyina su dee ne waa ja nga xam ne day sakku daa gis benn preuve baada yaminil matlub gannaaw waat gañ ko lu sakkoo lam yakun alima biha te moom xamul woon ne preuve yooyu am na ko fadiyalahu biha des na ko atteel ci preuve yooyu wa in kaana alima biha mu doon xam na ko nag fala tuqbalu minhu kenn du ko nangul loolu waxat qiila tuqbalu minhu doonte ne am na ñu ne dañ ko nangul ci lii day wax rek mbokk julit waa ji ñëw na accusé nit ki moom bi ñu waatee ba pare te xam nañ waat gi la koy waral moo ñàkk preuve gannaaw ba nag la am preuve yoo xam ne moom amoon na ko waaye du ko indiwul su boobaa dañ naan kenn du ko ko nangu amma bu doon tene ne moom preuve yooyu amu ko woon xamu ko woon waaye gannaaw bi ñu waatante ba pare waa ji bëgg a dem nga am preuve yooyu su boobaa loolu dañ ko nangul ñu ngi noonu ok ne comme ni ma la ko waxee affaire at lay def bu dee ne da ngay jël beneen bind mu ne wa yuqda bi shahidin wa yaminin fi l amwaal des na atte ci ak benn seede ak waat bu dee lu jëm ci wàllu alal ya wala yuqda bi dalika fi nikaahi doonte ne kenn du seede loolu ci ab sëy aw talaaqin wala ci fase aw xaddin wala ci loi bu ñuy tegaate wala fi damin amdi kenn du ko seede ci deret boo xam ne waa jaray moo ko tey aw nafsin wala ci bakkan mi ngi noonu illa ma al qasaama xanaa ludul bu dee dafay ànd ak waata tega ñu waat fi nafsin ca bakkan ba nga xam ne nii dañ koo dañ ko rey wa qad qiila yuqda bi zalika fi jiraax doonte ne ne nee nañ dees dafa attee ca jam-jam yi ala ku di xaal mbokk li ñuy wax fii rek mooy bu dee wàllu alal la waa ji mën na indi benn seede ca attekat bi ànd ak waat masalan waa ji ñëw nga lebal ma ko cent mille francs mu taxaw witt ni mosula maa lebal dara te am nga benn seede am nga droit ci attekat bi indi seede bi boo nekk waat ba ngay waat loolee nekk preuve ci loolu amma bu dee wàllum sëy la waa ji ñëwoon ci ni man kat ndaw si may nañ ma ko daañu ne la kan moo ko seede nga ne ah Mor Diagne bi de seede na ko ñu la ak kan nga ne ah moom rek laa am loolu yi lislaam da ko daw ndax ab sëy dañ naan fokk kon ñu saxal ko mu am ñaari seede naka noonu it tey jii soxna si ñëwoon mu ne man kat sama jëkkër fase na ma ñu woo jëkkër jëkkër ji wéet ñu ne ko ana sa seede mu ne bi may fase kat sàmm jom bi fekke na ko ñu ne ko ak kan mu ne ah moo ko fekkee dañ naan déedéet fokk ñu am ñaari seede doo ko nangu ni sa jëkkër fase na la naka noonu di loi bu ñuy teg ku mu mën a doon benn seede lu tax ñu teg ko nit ki ka doon loolu sàcc la jaaloo la lu mu mën a doon benn seede lu tax ñu teg ko nit ki bu dee deret yoo xam ne ni it deret ci tey la lan seede ne diw moo ko jam kenn du ko seede amma bu dee bakkan bu ñuy rey te bañ koy rey benn seede am na su boobaa dañuy woo mbokki kañuy kañuy rey am nag benn seede boobee ñu daal di waat juróom fukki waat comme nañ ko jàngi woon ci bind yi passé su ngeen ko fàttali ko jàngoon nañ bu demee noonu mi ngi noonu donte ne ne comme niñ ko waxee loolu ñun attewul soo jël beneen bi ñu def ne wala tajuuzu shahadatu nisaai illa fi l amwaat islam du nangu seede jigéen xanaa lu dul ci wàllu alal kese wa miatu imraa bu ñu indi woon téeméeri jigéen kamraatayni moom ñaari jigéen a yem wa zalika ka rajulin waxid loolu comme moog benn góor yuqdaa bi zalika ma al rajul des na atte ci loolu ànd ak benn góor aw ma al yamin wala fekk ànd ak waat fii ma yajuuzu fiihi shaahidun wa yamin te la nga xam ne dana ca dagan benn seede ak benn wax wa shahadatu imraatayni faqat waaye seede ñaari jigéen kese fii ma la yusalliqu an alayhi rijaal te la nga xam ne du ca mën a feeñ di ca gëstu góor ñi min al wilaada la doon ci wasin gëla wal istihlaal wala jooy ba xale bi jooy ba mu juddoo wa shibhihi ak lu mel noonu lu mel noonu day jaayisa dana dagal mi ngi noonu mbokk day wax fii ne jigéen kenn du ko seedaloo ci attee xanaa lu dul ci wàllu alal wàllu alal kese bu dee ne ci wàllu deret ay reyante yooyu kenn du ci seedaloo jigéen amma bu dee wàllu alal des ñu seedaloo jigéen xam nga sëy sëy kenn du ci seedaloo jigéen amoon téeméeri jigéen ñu seede sëy boobu islam da ko def fokk ay góor lay doon amma bu dee alal it da ngay gis ni suñu borom def ne ñaari jigéen ñooy remplacer benn góor waaw su amee ñeenti jigéen nag ñeenti jigéen égal ñaari jigéen téeméeri jigéen égal ñaari jigéen ñoom ñëpp dañuy taxaw taxawaayu benn góor su ko defee kon loi bu ñuy atte ci wàllu alal suñu amee benn góor ak ñaari jigéen loolu day doy attekat bi ci preuve walla ko waa ji am benn góor boole ko waat wala mu am ñaari jigéen boole ko waat loolu dañuy wax ci wàllu googu comme jigéen ci alal lay atte ba mu des nag li nga xam ne jigéen doo ma ko mën a xam ñu ngi noonu masalan du jëm ci wàllu wasin yi te ji ay jigéen daje dañuy kii am doom ci am doom kan moo jur kii ku jur kii jigéen ña nga xam ne ñoo leen doon am si ñoo ko mën a xam tey jii xale bu juddoo dañuy gis ne bu jooyee su boobaa dañ naan day doon li nga noonu dañuy jaarale ci moom wala at yi ñuy jaarale ci mag waaw ndax bi mu juddoo jooy laaj jooyu loolu jigéen ya ko dul accouché accouché ñoo ko mën a xam ba tax mu ne su boobaa kon daañ nangu acte jigéen ci loolu bu dee ci topp boo ko jàngee mu ne wala tajuuzu shahadatu xasmin lu dagal nag seede koo xam ne nii dafa am ak nit ki ak noonu mi ngi noonu wala zanin ak koo xam ne dañ koo yàgg tuumaal ci ay fen wala yuqbalu kenn du nangu ci seede illa al udul lu dul la nga xam ne mooy ak maanu naka noonu it wala tajuuzu shahadatul mahdud kenn du nangu sëy rek koo xam ne dañ koo duma woon yari yoon wala shahaadatu abd wala seede jaam wala sabiyin wala xale bu majalugul wala kaafir wala koo xam ne nii ak yéefér wa ida taaba almahdud amma nag bu dee ne tuub na ka nga xam ne nii dañoo tegoon ci moom loi fi zinaa ci njaaloo qabilat shahaadatuhu des na nangu ay seedeem illa fi zina xanaa lu dul ci njaaloo kese ba ko kon fii day wax ni waa ji nga xam ne daa noonom nit ñi ko xam kookee ñu koy atte noonom boobu ñoo seede masalan maa ko gis muy njaalo wala maa ko gis muy sàcc te ñu xamoon ak noonoo ko dox seen diggante seede boobu kenn du ko nangu waa joo xam ne yëpp bu maal nañ ko ci ne moom maalu ko kenn du nangu seedeem seede daal bala ko attekat nangu day doon koo xam ne ku maalu la ku maandu mooy kat ci lislaam mooy koo xam ne xamewuñ ko bakkaar yu mag yi te bokk na ci bakkaar yu mag yi bàyyi julli wala bàyyi koor wala masalan ñu mas koo xamal rey nit wala njaaro wala naan sàngara yooyu yëpp bu dee kenn xamalu ko ko dañ naan ko maandu mi ngi noonu ki nga xam ne nag dañ koo mas a teg loi ba duma ko ci penc ma ku mel noonu biir suñu nangu ak seede bi biir penc bi jaam biir suñu nangu seedeem xaale bu ñu nangu seedeem loolu dina am seede bu ñuy nangu ci kanam ci wàllu xale yéeféer kenn du nangu seedeem ci lu mu seede ci kaw jullit bu dee ne waa ji dafa mas a njaalo ñu duma ko yari yoon beneen bu ñu wëlbati bu gis ne moom kat tuub na tuub bu sell su boobaa dees na nangu ay seedeem ci yeneen atte ba mu des seede yoo xam ne nii dafay adu te la nga xam ne nii mooy wàllu jaamu kon loolu bokk jàpp naa ni ma des na ko doyloo di ñaan yàlla subhanahu wa taala war na yàlla barkeelal ñu fi jot a jàng te defal ñu ko njëriñu am na njëriñu allahirahu wallahu aalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
alhamdulilah xam na bokk na ci li ngeen dégg tey mooy li ñuy tuddee ay feetu Toussaint nga xam ni dañ koy jagleel néew yi ak di ko jagleel seen saint yi loolu leen rek la ñuy jàngal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dene woon da ngeen topp yoonu ñu leen fi jiitu woon bu ñu duggoon te pax bu bëtt sax ngeen dugg ko mu ne ko yóbbu te nasara mu ne dun ñooñu ñan la su ko defee nit ki jógee fii di ab sëriñ ñu jagleel ko bis loolee da ngay gis nasaraan yi ñoo ko jiite woon ñoo ko jëkke woon ba tax tey jii doonte ni ñu naan dañ ko jagleel nii yëpp waaye mooy bis boo xam ne dañ ko jagleel saint yëpp boo xoolee calendrier bi bu su nekk am na ko ñu ko jagleel li ñu bëgg a wax rek bokk islam ñun xamuñu loolu te li la koy won mooy ban mooy bisu Abubakar ana bisu Omar ana bisu Ali ana bisu Ousmane islam xamul bis bu ñuy jagleel ci faat doomu aadama bi boo xamee ne faatu na ku sa xel demee ci moom bisam la mooy ñaanal ko yàlla waaye jagleel ko bis loolu yu amul ñu ci bàyyi loo xel lu xewul woon bu yàgg tey famille yu bëri ñu ngi koy def mooy bis bi seen bàyyi gaanu ñu daal di woote togg seen ñam yu neex woo équipe kaay bi ne dañuy suñu bisub bàyyi la suñu bisub yaay la suñu bisub nangam la mbokk islam xamul loolu mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam naam waaleykum salaam man dama fekk ñaari at benn at bi dañoo activé ki nga xam ne moom lañu activé moom la moo teew ki ko activé ñëwul ndaw si nga amoon ci responsabilité ñëwul juge sukkandiku ci ñaari wax la mooy lii bu activé li mu wax ak responsabilité li mu wax mu tëj waay beneen bi homme de tenue moo taxaw moo teew ak ki ñu activé homme de tenue wax juge bi ne pourtant en tant que homme de tenue bi moom muy liggéeyam su ne nangoon nga da ngaa bëgg ci forêt classée bi yow nga ñëw taxaw ne ñu forêt classée bi kon ci loolu su ko nit tëj waay bi di moom mais man may laaj ci islam ndax islam bi jàngale na fenn koo xam ne nit ko war nañ ko atte dañ koy atte fekk ki ko accusé ki ki accusé moom rek moo teew ki ko accusé teew
wala ku di xaal suñuy wax atte ci lislaam fokk ka nga xamee ne ni dafay atte dafay woo ki accusé ak ki ñu accusé ñu toog ci kanamam loolu la ñuy xam ci atte lislaam amma suñu atte réew yi ñoom ñoo indi yeneen i forme yoo xam ne yow mën ngaa tuumal nit ki pare ba pare nag yóbbu sa avocat moom mu dem wax la muy wax waaye daal li ñuy tuddee atte lislaam mooy dañuy yemale ñëpp ñu toog su ko defee même bu dul amirul muminin wala li doxoon ci diggante Shurayh ak Ali ibn Abi Talib ba jib sàcc mbubbam ba mu ñëwee dafa toog loo Ali ci Ali muy amirul muminin jib boo xam ne ni tekkiwul dara mu toog loo ah Ali ne kii li mu yor sama mbubb bu may sol la bu de guerre mu ne ko waaw lan mooy sa preuve mu ne ko ah kii Xasan xam na ko sama benn booy bi nekk ci kër gi xam na ko mu ne ko ah booy bi daal nangu seedeel waaye sa doom moom du ñu nangu seedeel waaw lii na ko ah loolu daal laa ca xam juif bi yàlla na mu woon ko tubal mu jóg ne ashhadu an laa ilaaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah man ñu nekk nii ñu may boole amirul muminin toogal ma même place di ma atti lii mooy diine dëgg bi jóge ci yàlla loolu ko tubal bu ci lislaam mu ne wax ne dëgg man maa ko topp ci biir moom wax dama sàcc ko nii maa ko jël rek ñu wax waaye lu tub naa dugg ci lislaam loolu kon liñ ciy jàngale rek mooy attekat bi balaa atte ay nit ki accusé ak ki ñu accusé yëpp lay toogal ci kanamam bokk leen déglu dooga atte allahu subhanahu wa taala alam naam waaw xaar waxtu day ne ci waaleykum salaam nit ki bu dee ci miraas ndax ñu gaaw a def miraas bi wala ñu ñàkk koo gaaw a def li ñu njëkk a wax mooy ki dee moom yoonam nekkul ci loolu bokk na lu bëri nit ñi wax nit ki bu faatoo bu ñu ko miraas suñ ko tàlli déedéet ki faatu moom faatu na alal ji fi nekk alal yi yàlla la suñu borom moo ko séddale léegi nag miraas mooy lan mooy séddoo yéena moom seen alal séddoo fi ma ne tey jii boo ñëwoon fexe benn mbooloo nga may leen cent mille francs ñoo ko moom heure bu la neex lañ koy séddoo bu ñu dëppoo ne dañ ko séddoo léegi xayroon suñu dëppoo ne dañu koy boole bàyyi ko noonu masalan suñu toolu bàyyi la dañ bàyyi tool bi nii suñu kër bàyyi la dañ bàyyi kër gi nii usi bis bu bàyyi ko moomal dañ ko bàyyi nii continuer loolu islam ci wax dara islam daal li muy waxee mooy kenn bokk na ci miraas mi soxla na wàllam ñu ñàkk koo jox wàllam loolee di ko lor su boobaa di daan yéey fexe leen jox ko wàllam ak nuñ ko mën a joxe wàllam waaye ñoom ñëpp daal bu ñu dëppoo ne ñun soxluwuñu seen wàll su boobaa islam du leen wax dara fii yëpp loolu amu ca léegi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam waaw dafay fekk waaw faatu ay doom ñoom la ñoom la ñu may waaw
ñu laa ko gis doom ndaw la jàpp ñu leen dugal école ana ngeen wax seen seen bu ko ñu ngi lan seen seen bopp suñu borom dane xale yi nga xam ni dañoo seen bàyyi daa faatu bàyyi leen alal alal joojee nañ leen ko gardee bu ñu leen ko jox waaye nag warzuquhum fiha waqsuuhum nañ leen ci entretenir ci gàttal ci bàyyam dee bàyyi alal alal jooje ci lañu war a fay am jàngam alal joojee ci lañ ko war a dundal ci lañ ko war a wattu loolee da ngay gis ne ah, ci alalu boppam lañ ko war a defal loolu su dee ne amul nag ñeneen ñi nga xam ne ñooy jege daal doo ko mën a taxawu ci loolu waaye ah, moom ci boppam bu ñu am na alal alal la ci moom lañ koy jëfe comme na ko suñu borom yàlla waxee ba baa muy majeur nag la nga xam ne moo ca des ñu doo ko koo jox su dee ne it ah, mbir la koo xam ne am na ku coobaru yoral ko yoral ko ay àqam te alal dañu dencal ko loolu it mooy la nga xam ne mooy la gën suñu borom yàlla mu ne duñ jege alal yi njëriñ lu dul la nga xam ne noonu la gën a rafete te mooy nam gën a rafete mooy fexe yokku ko yokku ko ci dugal ci loo xam ne ca lay yokkoo waaye nag yow mi yor alal ji it bu dee daal coobarewoo xamal ne jëriñ bi moom alal la moo ko war a dundal tànk am na alal wallahu subhanahu wa taala alam bu fekkee ne moom dañ koo miraas nga xam ne doom yi am na xaq mais miraas bi dañ bàyyi ko ñu dañ am xaq mën nañ caa def loolu ba xaq ñu ñu jëlee wa ala kulli xaal li ma la wax rek moo ci nekk mooy xale bi aajowoo na masalan jàngte bàyyam bàyyi ne bi arab alal joojee joxuñu ko ko ba njàngam yàqu kooku ñu ngi koy tooñ te mooy ne fokk daal képp koo xam ne ak xam nekk na ci miraas bi te ñu xam ne buñ ko joxul ñu ngi koy lor miraas boobee dañ koo war a def jox ko ak xam yonente bi alei salaam dana wax naan matlul gani zulmun ki nga xam ne mën naa joxe ak daa yoroon nit ki borom dénkaane dem lu mu mën a doon man ko koo jox jox ko ko ma ngay doon kon képp koo xam ne nii bàyyi nee na bàyyi alal ci alal boojee moom ci àq boo xam ne moom bu ko jëloon mu mën koo jëriñ ngeen ñu continuer ko téye ko su ko téye mi ngi toon mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam waaw wax waaw bismillah mu mujjee ci loxo bi rek waaw wala jiw bi lay laaj.
waaw ñu jiw bi am ku ñu toll ko ci biir ci biir ci ko jiw bi ko loolu la ci am ki jëkkëru koo imaam ala kulli xaal ki jëkkëru koo imaam kooku ñàkk na tuyaaba bu bëri ci jullit yi doonte ne jullit yàqu waaye nag def na bakkaar ñu benn parce que doyoo na ak ndigal yonent bi aleyhi salaatu wa salaam te it ñàkk na tuyaaba bu bëri ci jullit yi la nga xamee ne daal mooy mooy yàq julli mutlaqan mooy ki jëkk a kabbar imaam kabbar bu njëkk ak ki jëkk a sëlmal imaam amma bu dul loolu la nga xam ne moo koy def mooy tuyaaba ak bakkaar la lay yóbbu li mel ne waa ji jëkk siggi imam ci rukkoo yonent bi alayhi salaam mu ne xanaa nit ñi duñu bàyyi di jëkk siggi imam ba bàyyi yàlla di def seen bopp yi bopp mbaam gaa yi ne yàlla du soppi bopp bopp mbaam waaye day jël say xalaat def ko xalaati mbaam yàlla yàlla musuñu ci loolu kon day wañu ne bakkaar la grave ba grave euh, luy manqué lool sa fayu julli la mooy nga jëkki imaam ci benn jëf bu bokkul ak kàbbar bu njëkk ak sëlmal amma boo ko jëkkee kàbbar wala nga jëkk ko sëlmal moom sa julli yàq na complètement yal na yàlla sàmmal ñu suñu jaamu yàlla nangu àdduna ak alaaxira wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain